Ayib Daffé euh, la ñuy dalal député la euh, jiite itam commission délégation premier secrétaire euh, général adjoint bu PASTEF ci kanam tuuti boori 8h daañu dellu siwaat songu ñaareelu pàcc bi ci kattan yàlla jaa ngeen jëf ci seen cofeel ak seen kóolute léegi léegi RFM matin ak seen invité à ارجو بامرهم benn la fi amul ñaar. RFM matin RFM matin. émission bi yeewaa Sénégal. RFM matin 7h40 sunu gan Ayib Daffé salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ababacar ñu ngi lay dalal jàmm di nuyu Georges député Yewwi Askan Wi nga bokk ci kilifay Pastef euh, bokk ci vice président Pastef parti Ousmane Sonko mi nga xam ni tey dafay janook euh, normalement mambay Mbaye Niang ci tribunal ci lu ko Mame Mbaye Niang clamé woon ne doo ko sosal ci mbiru Prodac gi ndax Sonko dani waa ji dafa luubal xaalisu réew mi rawatina xaalis biñ euh, Prodac doon jëfandikoo di programme boobu nga xam ni gouvernement bi ci la doon tabax ay tool yu ñuy wax DAC domaine agricole. communautaire fan yi nag les euh, tar na lool seen digg ak euh, waa nguur gi euh, démb am na yenn ci ay yëngu-yëngu yu am ci ci dëkk bi woote woon ngeen sax biig gaañ yi wutali kër Sonko waaye tey ci suba ñun bañ fa demee gisuñ fa kenn lan moo doxul ci appel à la mobilisation boobu lu tax gone yi ñëwuñu ni ngeen ko bëggee woon ngir gën a mën a ni ngeen ko waxee seen communiqué démb bi taral mobilisation bi. waaw Babacar nuyu naa leen di nuyu Georges nuyu auditeurs RFM yëpp ak ñu ñuy seetaan ci télé bi donc euh, di jaajëfal euh, patriote yëpp di jaajëfal responsable yeeg militant wu yeewi askan wi ci mobilisation bu am solo bu ñu def euh, barkaati démb sa meeting ak ACAPES bi di leen jaajëfal également ci mobilisation bu exceptionnelle bu ñu def sur tout le territoire national ak si diaspora bi mooy marche démb yi ñëpp xam nañ ñu patriotes yi pratiquement dans les quarante six départements déposé woon nañu ay demande de ak suñu allié Yewwi Askan Wi te pratiquement ci euh, département yu si ëpp daf nañu marche yooyu te mobilisation bu am solo pour dénoncer euh, dictature boo xam ne mooy installé wu Sénégal dénoncer également luubal bu ñuy luubal xaalisu réew mi dénoncer également lu ñu problème euh, en tout cas lu euh, premier ministre Hadjibou Soumaré waxoon euh, posé woon question télé ba léegi amagul tontu si sept milliards yoo xam ne yaakaar nañ ni jox nañ ko kii bi dirigeante rassemblement national muy Marine Le Pen bu ñëwoon seet si président Macky Sall te ñëpp xam nañu kooku Afrique bëggul Afrique bëggul lislaam donc looloo doon euh, suñu doon euh, mu muntifu manifestation yi ñu dafoon démb également di jaajëfal ñëpp ñoo xam ne euh, rendre nañu au niveau de la cité Kër Góor gi notamment suñuy député Yewwi Askan Wi di leen massawu notamment suñu frère ak suñu collègue Guy Marius Sagna nga xam ne démb dóor nañ ko lacrymogène ak suñu sœur Rama Bodian nga xam ne moom itam député la ay force de l'ordre ñu ma mun a tuddee sax ay force du désordre parce que soo ay député suñu la ñëwee tiim la euh, di ñëw ak waxtaan ak gi yow pour bëgg a dem ne dañuy dem seeti le président Ousmane Sonko te président Ousmane Sonko ñëpp xam nañu benn décision justice pour le moment euh, teguwul ci kawam ba ñu ne ko dafa nekk résidence surveillée donc normalement am na droit génn këram. am na nit ñi tam am nañu droit dam seeti ko mais gis nañ ni tere nañ ko mu génn këram tere nañu également doomam mu jàngi te loolu du lu euh, du lu bees yàgg na fi donc dafa mel ni dañ ko singali dafa mel ni tey régime d'exception nañu nekk par rapport ak euh, situation juridique xale yi jàng xale yi jàngiwul bëri na nag ay yeneen doomi jàmbur yu ñu xamul xëy na xam nga loolu itam moom moo am. Euh, ñu leen ñi war a liggéey itam mënuñu liggéey bëri na. Babacar xam nga ni ñu leen tere jàngi mooy. Euh, police ak gendarmerie parce que pratiquement ñoom tiital nañu dëkk bi yëpp occupé nañu fépp daf ay char loolu parents d'élèves bi suñ ko gisee dañuy téye seen doom. ah mais parce que yéen tamit yéen son ko Sonko ak yéen yéenay woote euh, gatsa gatsa yéen a woote jàmmarloo ak état euh, état itam xam naa ne xaaral ma jël samay matuwaay. parce que dañu dem ba sës am gisatuñu benn solution parce que su fekkee ne lu ñuy teg dañu ko teg si yoon teg ko si ay base légale ñu xam ne lii décision de justice ñu xam ne lii droit la ñu xam ne lii décret la lii la. dañ koy nangu mais loo xam ne teguñu ko fenn teguñu ko si justice parce que état état état bu jàppee ne Ousmane Sonko bu génnee këram am fu mu dem yëngu-yëngu am mu mën a jur loraange mais si ah, ban base légale la da koy da koy da koy naj foofu ah état mooy gérer état mooy gérer sécurité état de droit nañu nekk dafa war a am base légale ñu ne décret la arrêté la wala décision de justice su fekkee ni loolu la nekkatuñu état ñoo ngi ci benn monarchie wala ñoo ngi ci benn proto am na lu wax maintien de l'ordre non maintien de l'ordre yëpp yooyu yëpp ci base légale la amul amul dara loo xam ne tey état da koy def te tegu ko ci yoon tegu ko ci droit suñu su nekkul loolu rek day doon forfaiture wala mu doon lu ñuy naan voie de fait te loolu juge bi su boobaa juge bi sax dafa war a saisir immédiatement pour arrêter loolu mais gis nañu magistrature bi euh, le syndicat de la magistrature kenn déggu leen par exemple euh, association magistrat yi alors que ñoom ñooy garant liberté yi ak droit yi tey dañu ne le pouvoir judiciaire est le garant des libertés et de droit donc suñu gisee ni pouvoir exécutif moo ngi jalgati yoon dañ ko war a démb nag député yu fa demoon ñoom Guy Marius Sagna. loolu la ñu gis seen digg ak magistrat yi da comprendre luñ ko parce que bu ngeen xëyee ne magistrat yi jubuñu euh, bu ngeen euh, gontee ne ñu ngi leen di woo ñu yëkkati seen kàddu ci nangam. Babacar xam nga hmm. ñun dañuy apprécier concrètement la situation hmm. concrète analyse concrète de la situation concrète lu ñu gis jamono jii si magistrat yi tey na suñu xel. gis nañ ko récemment dernier euh, réunion conseil supérieur de la magistrature déjà ku ñu fa teg comme ministre de la justice kooku déjà amul benn crédibilité déjà goxam munu faa gagné sax euh, bopp koñ donc kooku euh, il s'est yi lu mu waxoon démb yépp renié wu na complètement donc ñëwoon na yaakaar naa ni il était dans une dans un autre organe de la place la dernière fois mais leneen li lu si ëpp solo tey ñëpp ñoo xam ne tey magistrat yëpp yoo xam ne dañ leen remarqué pour seeni jalgati yoon pour seeni maanaam lu ñu yàkkamtee su leen pouvoir politique joxe ordre ñu exécuter ko te duñ ko teg si yoon ñoo ñëpp promouvoir ñi leen te ñoom ñoo nekk ay conseil constitutionnel ñoom ñoo nekk cour suprême ñoo nekk président cour d'appel et cetera et cetera donc te gis nañ tamit juge yoo xam ne dañu leen di tànn dañu leen di tànn par rapport ak seen jegewaay ak ñoo xam ne dañoo bokk ci nguur gi wala ñu bo wala président de la république wala ñoo xam ne dañoo bokk ci famille président de la république loolu nag mënul mënul mënul mënuñu Euh, rassuré par rapport ak ak situation magistrature mais bu ñu delluwaatee ci base légale ba ngay wax ne mhm. euh, waroon euh, ci yoon soit ab décret la war a doon wala ab loi wala ab arrêté wala décision de justice ak décision de justice ngeen mhm. ngeen ngeen tënku ca et pour autant yenn saa yi dañuy gis ay arrêté ki nangam ya nga xamante dañ koy jël yéen doo leen teg moom arrêté bu ñuy jël xam nga dafa am lu ñuy naan des normes arrêté bu ñuy jël loi dafa war a ah, méngoo constitution Euh, décret méngoog décret wala arrêté méngoog loi su gisee ñu contesté parce que dañuy apprécier ni par exemple décision bu ñu jël décret bu ñu jël dama lay jox benn exemple euh, récemment révision exceptionnelle bu euh, ministre de l'intérieur bi publié sur décret Macky Sall la sax moom dafa def communiqué mais ñu ne 24 jours nañu may ñoo xam ne inscrire guñu primo votant yeeg ñoo xam ne inscrire ñu ci liste yi pour ñu mun a inscrire 24 jours pour élection bu réy ni toll ni élection présidentielle alors que soo liiree loi bi code électoral dafa na ne dafa ne chaque année normalement dafa war a am révision ordinaire sauf année yoo xam ne année électorale la mais 2023 du année électorale année élection bi 2024 la donc on avait tout le temps. 2024 moom ab révision xaju ca. ah daanaka. mais on avait tout le temps de faire une révision ordinaire en 2023 mais dafuñu ko parce que bugguñu. Sénégal yi inscrire bugguñu la maximum d'inscrits nekk ci liste yi parce que xam nañu Sénégalais yi ànduñu ñoom loolooy situation ñun nag yooyu nañuy contester moo tax ma ne la lépp lu ñuy contester dafa nekk analyse concret de la situation concrète nekk ñu nekkuñu ñu ci théorie dañoo nekk ci pratique am na loo xam ne mun nañ ko bàyyi euh, théoricien du droit yeeg euh, universitaire yeeg yooyu ñun loo xam ne dañ koy dund président Ousmane Sonko lu ñu ko teg du dëgg du yoon te képp koo xam ne dafa nekk démocrate képp koo xam ne dafa nekk euh, quelqu'un koo xam ne moom justice ñor na la danga ko war a dénoncer am na leneen loo xam ne gis nañ ko démb ci terrain bi yéen seen reporters yeeg seen journalistes yi mais policiers yi dañ leen di gazé di leen jàpp dañuy gis photographe bu jël photo ñu jàpp la jël sa appareil détruire ko démb rek am na ñu ci jàpp loolu fan nañ ko teg ci ban yoon nañ ko teg alors que constitution bi moo mayee liberté d'expression constitution moo mayee droit à l'information donc su fekkee ni da ngay gis journalistes yi léegi sax suñuy dox dañuy yore butéelu vinaigre parce que xam nañ ni ñoom léegi ay cible nañu loolu fan nañ ko teg policier boo xam ne policier wala gendarme suñu doon suñu doon daf yoon suñu doon doxal yoon mais lu ñuy lu ñuy bañ ñu leen di jël ay photo wala ñuy journaliste daf seen liggéey donc loolooy situation bi actuellement si dëkk bi ñun ñu nekkoon démb cité kër góor gi démb aussi bien député yi nga xam ne dañoo am immunité parlementaire ñoom Guy Marius Sagna Ramatoulaye Bodian ñoom Abass Fall ñoom ils ont été ciblés ñu dóor leen lacrymogène direct journalistes yi pareil ñun ñëpp ils étaient obligés ñu dem euh, dans la structure hospitalière Souma fa nañu fan finalement fa ñu ñoom fa nañu mujj réfugié wu donc loolu ban situation moo ko jar alors que démb amul woon procès Ousmane sunk kenn convoqué wu ko woon il avait le droit librement mu génn këram dam doxe ay soxla waa këram génn seen kër doon dox seen soxla waa koñam tam am seen liberté mais lu ko fi jar léegi nag su suñu génneloon ñu ne décret bi moo ne ah Ousmane Sonko warul génn këram décision justice bii moo ko wax wala arrêté bii moo ko wax su boobaa ñun ñu woo suñuy avocat ñu attaqué ko suñ ci d'accord mais loolu yëpp su amul lenn rek nañu mun a woote mooy résistance mooy communiqué bu ñu woote démb. Euh, te si loolu nañuy continuer nit ñi ne leen euh, am na loo xam ne. Euh, woote ko ko laa wax ni gone yi dégguñ ko ndax da ngeen ni nañu fanaan seeg xeet googu waaye fanaan si wuñu xale yi. lu tax xam bu ñu nekk du mm. combat benn fan combat de longue haleine la Ousmane Sonko lu mu wax ni barke démb si meeting ba. wax na ko ndax euh, ñëpp pare nañu pour xeex te xeex boobu duñ ci pare tànk que Macky jógewu fi te Macky Sall jógewu fi mooy mandat am 2024 lay jeex. moom koy nee na nee na nee na gone yi euh, xam ngeen ministre fu fuñ dëkk bu am na nu muy demee rek ngeen dem attaqué leen. non non loolu moom dégguma ko. Ah. yaa ko dégg peut-être ah, man ah. meeting bu ma nekkoon dégguma wax jooju. waaw mi ngi noonu daal peut-être yaa ko dégg. léegi léegi euh, Ayib Daffé. <laughs> Mhm. bu fekkente ni. Euh, itam euh, euh, juge bu ñu tànn rek ngeen nii wóoru leen ko da ngeen koy récuser ni ngeen ko defee ci àtte bi war am tey jii est-ce que tey jii am na benn attaquet bu attaquet bu yéen ak Ousmane Sonko wóolu ci ci Sénégal wala amul. Georges Babacar mooy lu mu la wax rek ñun analyse concrète de la situation concrète nañuy def mooy maanaam lu ñuy wax dañ koy teg ci pratique dañ ko dañ ko vérifier xool juge bi nu muy doxalee juge bi déjà. dafa bëggoon juger affaire yi maanaam daf ko ci yàkkamte ak gaawantu boo xam ne kenn comprendre ko parce que dossier diffamation c'est un dossier banal ci wàllum justice. mais gis nañ mais banalité dossier boobu. aussi war na mën a tax euh, ki nga xamante ne moom la ñu teg tuuma wala ki nga xamante ne moo teg tuuma ci keneen buñ ko wooyee buñ ko wooyee ci yoon jarul muy naan ñëw leen fees tribunal. buñ ko buñ ko wooyee yoon mais dafa gis ay acte dafa gis ay acte yoo xam ne dañ ko teg ay acte yoo xam ne c'est inhabituel. mooy maanaam procureur di saisiru di yokk ay charge ah euh, diffamation nañ ko nañ ko porter plainte procureur ne non non diffamation doyul nañ ci yokk faux et usage de faux ak menace de mort mooy maanaam suñu tëjee bunt bi ñu ubbi buntu mën a jaar ca palanteer menace de mort moom bokku ci waaw non en tout cas teg na ci ay charges yoo xam ne procureur sax nag yoon moo ko may ah, muy apprécier ay charges hmm? gis nañ si pratique hmm. judiciaire yooyu daanu woon am ci dossier diffamation leneen li yàkkamti bu juge bi yàkkamti juger dossier bi te ñun gis nañ ñu ay dossiers yi en général ñu xam justice moom justice ça ça prenait ay six mois parfois un an sax mais tey dafa mel ni tey te yàgg nañu wax le temps de la justice na ñu leeral tontu nga tontu nga saw saw laaj ah, non non le temps de la wax ñun suñu dossier suñu déposé ah ñu ne daa yàgg dugg nañ fii gaañ lu ñuy tontu le temps de la justice n'est pas le temps du politique mais tey dafa mel ni euh, le temps de la justice moo ngi collé wu benn calendrier électoral loolu nañu gis te juge bi ñëpp xam nañu am na ay proximité par rapport ak euh, président famille euh, présidentielle bi Ousmane Ousmane Ousmane Sonko moo tuumal Mame Mbaye Niang li ñu bëgg a laaj mooy Ayib Daffé Macky moo leen di tànn Ayib Daffé à travers le conseil supérieur de la magistrature ak ministre Ismaïla Madior Fall te ñooñu ah, lépp loo xam ne ñoo ngi koy dox ñoo ngi koy teg c'est pour liquider ak faagaagal Ousmane Sonko ak opposants yi est-ce que est-ce Sonko yor na preuve yi nga xam nii mooy firndeel tuuma gi mu teg ci kaw waa ji. sénégalais yëpp yor nañ ko man mi dëkk département de Sédhiou xam dam visité DAC de CFA xam naa lu fa am ak loo xam ne euh, en tout cas jalgati yoo xam ne nañ fa def loo xam ne crime économique la. kirim économique la Birahim Seck non dégguma est-ce que am nay ya am na rapport IGF ñëpp gis nañ ko moo ngi sur la place publique Birahim Seck bind na ci livre Birahim ah. Seck li mu bind livre dañuy. dañuy dañuy ministre ba woon. te nekk léegi tourisme te yoroon jeunesse. jamono jooju waaw. moom moo signé benn euh, ordre de mission boo xam ni fa la lépp déparé. ma ne dafa waaye Birahim Seck waxul ni waa ji dafa jël jël loxoom dugal ci kees gi. tibb dugg dugg def ci poosam. Sonko lu mu wax mu ne il a été épinglé par un rapport Sonko loolu la wax.